lay ku doon laaj ku amee diine yónneen bu fa jàmm laay bàyyi laay amee ku doon laaj ku amee diine yónneen bu fa jàmm laay bàyyi laay laay baay ku doon laaj ku Medina yonen bu feeru fa jàmmalaay baay laay wa Medina. Medina yonen bu feeru fa jàmmalaay baay laay. yéen waa xin waa njëkkee na ko ngeen ku taw jàmmalaay laay yaram ba fee. waa soo am ngeen ngëneel gu rëy. waa fan nga wa kaaf dañu am ñaari yonen te di ko Kudani akula medina yannan baveru fajamal al bailaya. Limamulai, kamu punya isa penjualan kontaan jullit ñi baab ka ne seen baay li ma jàpp na diine ku doon laaj foofe diine yoon nen bu beeru fa jàmm laay baay laay laay laay ku doon laaj foofe diine yoon nen bu beeru fa jàmm laay baay laay laay wali woowu dama koy way na kaaru jal bur yàlla moo tax ma di koy way naa ko kambare way naa ko jàmm laay ñu ne sa dex sa baay li laaj ku koy boo ca tuub walli wa dem ba jub gaa yi mënul bëgg ko jéem ku daan laaj ku rame ba féeru fa jàmm laay baay laay lay moom la ñu jàng sëriñ si wax na ne yónneen du am ci tàng bi nu toll ku yàlla yónni nga woote ku mu yónniwul doote ku yàlla yónni nga woote ku mu yónniwul doote ku yàlla yóndul isaaru walay bay ay lima ñoo mu jegeen ab jamaat moom la ñu ñaanoon sëriñ si wax na ne yónneen du am ci tàng bi nu toll ku yàlla yónni nga woote ku mu yónniwul doote ku yàlla yónni nga woote ku mu yónniwul doote yàlla yónni nga woote ku mu yónniwul xamuloo yoonu fii ba bay war a woote ku yàlla yónni nga woote ku mu yónni doo sañ a gàntoo yàlla yónni nga woote ku mu yónniwul doo woote ñeenum yàlla bi ma gettu lay lay dafa lay maa di yoon ñin taga bopp yi fi jàmmaani téere yeddina diine borom jamaana ku bañ baay limaamu bañ nga sa bopp ku yàlla yónni nga woote ku mu yónniwul doo woote ku yàlla yónni nga woote ku mu yónniwul doo woote laay diinu mu yàlla mi ma di lay lay lanaa tabalay maa di yaa ngi ñin taga bopp borom kiit yi fi jàngooni téer weddina diinay borom jamaana ku bañ baay limaamu bañ nga sa bopp ku yàlla yónni nga woote ku mu yónni wul doo woote ku yàlla yónni nga woote ku mu yónni wul doo gërëm leen digal laaw xalifa way wow ci la xam ngeen ne maali mbay li mu nekk dab ko tey ña daan way di tajayoon nan malaaka yaay seen seet ku yàlla yónni nga woote ku mu yónni wul doote ku yàlla yónni nga woote ku mu yónni wul doote kitaab bi jaar ak cam ñu naan wéet boo noppee aras dafay jooy seen baay li maamu laay mi ñu yónni ku yàlla nga woote ku mu yónni wul doote. ku yàlla yónni nga woote ku mu yónni wul doote. yaay waa kër yi baax bi ñu tabbi jàkk nër mi bëgg caatim loolu yoroo ñu ko diineem ku yàlla yónni. yónni nga woote ku yey wax sëriñ ba ne jóg leen jaamu yàlla te ñu ci barkeelu ba li fi nekkoon jullit ñi moom la nuul malaaka gën li maamu laay bu yeggee siraat yaanu xala ku doon laaj ku ame diine yoon nen feeru fa jàmm baay laay ame diine ku feeru fa jàmm baay laay yéen daal yéen da ngeen xamul li mu baay libaas ba mu wootee ñu wóoyu ko ñaka bañ naan bu leen ca sum réew yàlla ko yónni njiin du la faale ku yàlla yónni nga woote ku mu yónniwul doote ku yàlla yónni nga woote ku mu yónniwul doote Sëriñ Matar la Jibril Ngeek yéen daal na ngeen ñemeñ firi seeni te bàyyi laay feeñ ku yàlla yónni nga woote ku mu yónni wul doo ku yàlla yónni nga woote ku mu yónni wul doo yónni ba jim sunu buur yàlla ba mu yónnee na yabal ko ci duniya di tëj gi gën a weerante moo tax ñu ne du yónneen ku bañ libaas nanu jox noo ko lu nun du nu doylu ku yàlla yónni nga woote ku mu wul doowaate ku yàlla yónni nga woote ku mu wul doowaate lay ku bañ li baax dala wul buur yàlla da ko yónni waar yow mi bañ yaakaar borom maral mu wóoloo li maamu laay tan ku yàlla yónni nga woote ku mu yónni wul doowaate te dawate ku mu yor ni yàlla wàcc na limaamu ku mu yónni wul dawate ku yàlla yónni mu yónni wul dawate yeesu muy baawaan ci dongoom ci lu caaxaane seen kanam yi ne na ñay dañoo amee diine ku yàlla yoon ni nga woote ku mu ni wal daawaate fii ba coorat ilayi na kursi jaare saw seen baay imaamu lay mi ñu yónnee ci réew moom la nu wóolu borom ji ñu ngi ca fii misigi ya bàkk na yoon ku yàlla yónni nga woote ku mu yónni wul doote ku yàlla yónni nga woote ku mu yónni wul doote gën leen teeri te jàngaat isaa ba woona fa wàcc takkusaan du nga jëm yoo julee ji maa dul seen baay li maamu laay mi ñu yónni ku yàlla yónni nga woote ku mu yónni wul doote ku yàlla yónni nga woote ku mu yónni wul doote ma jàppal sa doomi ndey bu yaram teloon moom ne ba mu waatee yar yow la jëkkaat tubaab ba ñëw di ko seenoo ci kaw loolu masuloo am dañoo xamul maanaam kaw ka muy jógee leen jaax ku yàlla yónni nga woote ku mu yónni wul doote ku yàlla yónni nga woote ku mu yónni wul daawaate sa turu wi dëkk na diinem julli ji dem na ba màkkam julli ñuy bëggaan isaama ndaw bu ñu teewgee guddeeg bëccëg baayu maanatulaay war nañu laawe ku doon laaj ku wabe diine yonnen ba feeru ku doon laaj ku wabe diine yonnen ba feeru fa jàmmalaay baay laay wabe diine asay di li maamoo di sa soppe saliyaa على سيد الإمام دي